soxna si Woulimata lay wuyoo mu ngi dëkk ca quartier jàmm gën bu commune Sam Notaire ca département bu Géejuwaay moom nag dafa jur ñetti doom ñi ay seex lañ ñaar yu jigéen lañ ak benn bu góor ci jur boobu mu doon jur doomam yi dafa amoon ay jafe-jafe moom nag gannaaw buñ ko opeeree la mujjee jur ñetti doom yooyu le ci accouchement bi aussi césarienne laa am te xale yi wax dëgg yàlla li ñuy li ñu wax rek moo ci nekk ndegam yor benn dafa wax ma laa yor ñett. nekk ci benn famille boo xam ne néew di doole la jëkkëram amul liggéey moom nag amul ay moyens yoo xam ne dina mën a dundal xale yi tax ba pàppam gile di ñaan rek ñu jàppale leen. di ñaan yàlla képp koo xam ne war nga mun a am ndimbal boo xam ne nga jàppale ko mu jàppale ñu ci ñu ngi koy jàppale nag li mu soxla rek parce que benn wenn pour nàmpal ñetti doom dina xaw a metti ñu bëggoon a jàppale ak noo ko a jàppale yàlla nekk soxna boo xam ne mu ngi am ci lu tollu ñaari fukki at dafa rek jur ñetti doom ca hôpital Philippe Maguilène Senghor moom tamit dëkk ci benn famille boo xam ne néew di doole la tax ba muy ñaax ñu jàppale leen ngir mu mën a dundal yooyu lay xale.